jomb waxuma jomb jomb jomb jomb lu nga jombale sa bopp hmm. refuser de descendre bas au niveau des débats politiques surtout dans un pays tel que le Sénégal où nous sommes confrontés à une pandémie bu nga xam bi bii yàlla rek moon si mën génne nanu sell tàllal suñu loxo suñu borom tabaraka wa taala ñaan ko pour mu teggil ni ko pour moi c'est la priorité qui surdétermine toutes les autres conseil et eh, je me suis euh, je donne aucun conseil j'attends de que la procédure. ñu bëri ñoo ngi naan médiation ñoo koy xaar ñi nga xamante ñooy leader d'opinion yi notamment ñi nga xamante ay kilifa lañu ci réew mi est-ce que wàllu boobu mënuñoo xaar ñoo ay médiation am au je le souhaite euh, euh, profondément parce que lii suñu ko bàyyee mu law waaw li li ñu si ñàkk bi nag yem te kenn souhaité wul Sénégal se trouve dans la même situation qu'un certain nombre de pays qui sont des pays voisins. Honorable. Nous sommes aujourd'hui, et je m'arrête là, parce que j'ai déjà tout parlé. Et je voudrais simplement que qu'on essaye de mener le débat politique avec euh, des arguments politiques, euh, des arguments bu nga xam ne suñu ko gisee dans dix ans. du ñu am yeddeel bu ñuy teg si ñun moi je suis dans la paix et toujours dans la paix la paix à sa méthode appropriée à ses exigences et je veux simplement qu'on campe dans ces exigences-là et qu'on essaie de traiter l'ensemble des questions, y compris cette question-là, avec euh, la méthode euh, appropriée pour que règne enfin la paix dans notre pays. Quand je vois ce qui se passe dans les pays voisins, ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe en, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans tous les pays dans les gens, j'ai le droit de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin.